pas la de le dire premier ministre chef du gouvernement am na ay kuréel yoo xamee ne dañ ko taxawal ñu am lu ñu saytu pour une fois ci diir bu gàtt ñu jox ñu tous les rapports euh, Cour des comptes OFNAC yu ni mel publier yoo xamee ni chaque année dañ ko waroon publier publier wuñu ko woon bi ñu ñëwee soññ leen ñu publier ko ci diir bu gàtt je le disais la na fois da ngay liir ba sa bopp bi di metti jarul wax am na yoo xam jarul wax bu bari xam nga lan ngay def nañu appliquer li nga xam ne moom mooy recommandation yooyu jóge ci rapport yi c'est pas la peine de communiquer autour de ça parce qu'ils long déjà fait xam nga lan moo des les résultats et les résultats c'est ku ñu war a jàpp-jàpp la ku ñu war a fayloo fayloo la ku ñu war a nangul la nga yore nangu ko ci yow lu ñu war a def ñu def ko c'est pas gis nga euh, wax bi nii Euh, on va faire ceci on va faire wax ngeen ko ba noppi c'est plus la peine parce que sénégalais yi ñoom ñoo leen fal jox leen confiance ne leen doxal leen il a même expliqué ci lu jëm ci bale boobu mu euh, président Diomaye di faral di yore ci ba ci campagne bi wax na lan mooy soleil bale bi gis nga euh, expliqué na ko soleil bale boobu ak fi mu jóge ak li ko tax a jóg pour man euh, c'est pas c'est même pas la peine de dire ça aux gens de dire aux gens on va faire ceci waxawoon nga ko les rapport sont là def nga ay actes yu positif na ni sortez les rapports ñu génne rapport yëpp y a pas à chercher de midi à 14 heures que le couperet tombe li naan jaasi bi jaasi bi nañ teg bopp yi nañ war a dagg lañ ko dagg amul xaar amul ay waxtaan euh, on va faire ceci on va faire cela jaru ko non c'est pas la peine non am na ñoo xamee ni non parce que non xam nga lu tax ma wax loolu dañu fi gis ñoo xamee ni mais li ñu génne ci rapport yi mais prédation prévarication financière bi ci am mais am na loo xamee ni c'est c'est un c'est c'est une image que je donne mais am na ñoo xamee ni mérite la guillotine kon jaru sax ñu naan leen non dañ leen dañ leen dañ dal seen kaw c'est pas la peine ñëw ñi ñu war a dal seen kaw xam nañ da leen dal seen kaw parce que bind nañ ko ci rapport yi nañu exécuter les rapport yi wax recommandation yi ñu wax nañu woo procureur ci nangam procureur na woo nangam ci kii on a qu'à l'appliquer les Sénégalais vont applaudir parce que euh, y a des choses yoo xamee ni on peut pas laisser passer comme ça romb ko soxlawu mu leen di artu c'est pas la peine.